alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen ñuy topp ci jumtukaayu jokkoo yi jokku ci biir jumaay Tuubaa ñëpp ñu leen di nuyu di leen ziar leen ndokkeel ci bisu àjjuma bi di wax ne dellusiwaat nañ rek ci suñu émission suñu jotaay bi ñu baaxoo amal te duppe ko ëttu xidma mu bokk ci taxawaay yi ëpp solo nga xam ne dana ko taxawe muy li dikkaat ci xutbab ajuma bi nga xam ne moom la imaam bi jàllale jëm koo firi ci wolof jëm koo faram-fàcce tuuti ngir njariñ li gën a yaatu xutbab tey bi di xutbab ajjumay ñeenteel ci weeru safar xutba bu njëkk bi mu ngi jëm rekk ci jaamu yàlla ak njariñ yim am ak ni mu séddu ni mu séddalikoo ci ay farata ak i naafila ay farata ak i ngëneel xutba bi mu ngi doore ci ni xutba yi di baaxoo tàmbalee rekk mu ngi sant yàlla sant yàlla mi nga xam ne kaweem ak màggam toll na ci dayo boo xam ne xol munu koo jot xel munu faa àgg sant yàlla mi nga xam ne leeram yi jolli na lool fenk na lool ba àgg foo xam ne bët munu fa munu koo jot waaye gis-gisit munu faa àgg yàlla moom nga xam ne dafa kawe dafa màgg yàlla moomu nga xam ne dafa xereñ dafa bari ak xam-xam dara umb ko ci lenn wala ci fenn yàlla moomu nga xam ne dafa tedd waaye dafa bari yërmaande yàlla moomu nga xam ne lenn lu ci ne moo ko bind waaye bind ko ca anam ga gën a rafet melokaan wa gën a jekk alladi axsana kulla cheyin xalaqa yàlla mi nga xam ne it moo bind doomu aadama waaye bind woo ci melokaan moo gën a jekk moo gën a taaru wa xalaxal insaana fi axsani taqwiim sant suñu boroom moom nga xam ne nag moo def ne woote jëme ci yoonu yàlla woote jëme ci ñu topp suñu boroom mi nga xam ne moom rekk mooy dëgg ak di laay bire jullit ñépp suñu boroom moo ko def mu bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg waaye it moo ko def mu bokk ci mission yi gën a yitteel bi loolu jàllee ñu nag julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci moom ñaanal ko suñu borom dellu ko teraanga ak i xéewal waaye dolli ko ay mbokkam yépp ak ñi àndante woon ak moom te gëm ko dolli ko ay waa këram akum njabootam gépp bi loolu jàllee ñu daldi dugg ci xutba bi biir xutba bi ginnaaw bu ñu santee yàlla wax na mu mel julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boole ci waa këram ak i saxaabaam ak njabootam gépp mu wax ne yéen mbokk yépp maa ngi leen di fàttali leen wax ne na ngeen xam ne jaamu yàlla mi nga xam ne mooy buur nag dafa dafa bokk ci meññetum xam-xam nit lépp lu muy jàng di ko wut meññet ma ca war a ëpp solo résultat ba ca war a ëpp solo ba ca war a njëkk génne mooy xam-xam ba mu jëfandikoo ko ci ak jaamu yàlla jaamu yàlla nag lu yaatu la ndax lépp loo xam ne rek danga koy def te mu neex yàlla ci jaamu yàlla lay dugg ndax xam-xam mooy tiitaru doomu aadama mooy ab tiitaram ci la nit di tiitaroo ci la nit di amee tedd nga euh, xam-xam tamit mooy euh, honneur bi nga xam ne wala ngëneel li nga xam ne ci la doomu aadama di sute kudul moom xam-xam mooy indil nit ki texek àdduna ak àllaaxira waaye mooy indil nit ki réussir mooy tax nit ki am ndam ci dundu àdduna wala ci dundu àllaaxira xam-xam mooy yoon wi nga xam ne ci la nit ki mën a jaar ba dundam neex waaye ci la nit ki mën a jaar ba amuk texe xam-xam daal xaqiiqa bu amoon aw yoon nga ne xam-xam mooy yoon wa waaye charia dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xam-xam ndax xam-xam moo lay niital ci ñaari wàll yu yëpp jaamu yàlla gi nga xam ne nag mooy juddoo ci xam-xam moom it ci lañ ci mën a jaar ba dugg aljana suñu boroom daf ñuy wax ci alquran ne nit ak jinne dara dara taxul ma bind leen lu may ñu jaamu jaamu yàlla googu nag dafa am ñaari wàll dafa am ñaari xaaj xaaju xaaju ndigal ak xaaju tere bu dee xaaj bi jëm ci ndigal mooy ngay xool li la suñu borom sant mu nekk ay topp ak jaamu nga koy def topp yàlla yooyu nag ak jaamu yàlla yooyu dafa seetlikoo moom it ci ay farata ak i naafila waaye farata yi moom moo gën a jàmp moo gën a mata sonne ci moom lañu war a jiital ndax mooy capital bu doon alal nga ne mooy capital mooy bu doon commerce nga ne mooy cosaan ci farata yooyu ngay mën a jaare ba am ak mucc bu dee jëmmi naafile yi nag bu farata yi weesoo yeneen ya ngay def yu baax ya ngay def loolu bénéfice la ci bénéfice boobu nag ci ngay mën a yëkkati daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne ci ab xadis qudsi xadis boo xam ne jibril moo ko indil ne ko yàllaa ko wax yonent bi daf cay wax ne amul kenn ku may jege jegelu di ma jege jegeloo lu ëpp li ma farataal ci yéen kon daal ku ma bëgg a jege la ci ëpp solo mooy nay def li ma farataal ci yéen daan ne nag ab jaam dana góor góorlu di ma jéem a jege ci naafile yi ba ba dem ba sopp ko kon xadis bi liñ ci déggee mooy nit ki li mu war a njëkke mooy sonne ci farata yi ndax mooy tax mu jege suñ borom waaye daraja yi cay tege nag loolu la ku koy mën a may mooy naafile yi ndax rëcc rëcc yi am ci farata yi naafile yi moo koy jàng naafile yi moo koy réparé kon loolu mooy xaaj bi jëm ci ndigal yi kon ñaar la muy li nekk farata ak li nekk ay ngëneel farata yi moom mooy priorité ci lañu war a tàmbalee ci lañu war a gën a góor bu ñu noppee nag la ci des mooy naafile yi naafile yi li muy indil mooy daraja ju kawe lu mel ne suñu boroom bëgg la nga am ngërëmam ak yu yu ne demee bu dee beneen xaaj bi muy xaajub bàyyi liñ la tere moom mooy nga fexe ba lépp lu la suñ boroom tere nga bañ koo jege bañ di ko moy xaaj boobu nag nee nañ moo gën a jafe yombut ndax topp yàlla moom kenn ku ne mën na ko ku ko bëgg rek mën nga ko def waaye bàyyi tere nag ak li la sa di woo loolu ku yàlla dimbale nga ragal ko rek moo ko mën a def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne kii gàddaay dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne day gàddaay lu ñaaw waaye kii jihaat mooy ki nga xam ne day jihaat ak bakkanam waaye mooy ki nga xam ne day jihaat ak bànneexam kon ci gàttal loolu moo aju woon ci xutba bu njëkk bi kon ak soññee la ci jaamu yàlla wax jaamu yàlla li ñuy jariñ ak li ko war a jiitu te mooy xam-xam wax na jaamu yàlla yooyu it ñaar ñaari yoon la am mooy yoon wi suñu boroom rëdd def ko mu nekk farata te mooy lu mënta ñàkk ak nag waneen yoon wi nga xam ne daf koo yaatal def ko ay naafila farata yi moo gën a jàmp kenn ku ci ne danga ko moom nga war a jiital ci nga war a gën a sonne ndax ci ngay jege suñu boroom bu dee naafila yi nag moom ay ndolleen la kenn ku ci ne dangay def la nga ca man ndax moom boniis la rek ay dara daraja def ci yëkkati ko ay maqaama def ci dolli bu dee xutbab ñaareel bi moom it daa jëm rek ci fàttali e, ci lu jëm ci wàllu jukku ak comportement moom it mu ngi tàmbalee ci sant yàlla mi nga xam ne mooy al azizul xafaar mooy ku tedd ki waaye it mooy ki mën a jéggale yàlla mi nga xam ne mooy xewal di xewwil yàlla mi nga xam ne it géej goo gis muy wal moom moo ko bëbb am ndox waaye julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne képp ku baax di wut lu baax ci moom ngay roy waaye moom mi nga xam ne it képp koo xam ne dangaa jàddu yoon doy na la sëkk ak waar ndax mbaaxam nga ak sellam nga ak jaaram nga yoon julli ci yonente bi julli ci ay waa këram ak i saxaabaam ñi nga xam ne euh, képp ku bëgg a jaar ci yoon ñoom ñooy say biddiw waaye it teg ca ñi ñëwoon ci seen ginnaaw te gëmoon leen ba noppi daan leen roy ñun ñépp salaatu ak salaam yàlla nekk ci ñoom li fi yëg ñiita ngi xeñtu lu baax di ko wut di roy ci ñoon yi ñu wax gannaaw bu loolu jàllee moo ne yéen jaami yàlla yi na ngeen di fàttaliku li yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne boo nekkee ci àdduna na ngay mel ne ab doxandéem kun fi dunya ka annaka garib bul mel ni ku fi dëkk bul mel ni ku fi am bul mel ni ku fi feesle ba doo jeexalati waaye na ngay mel ni ab doxandéem kenn ku ci ne xam na ne nekkuwaayu doxandéem ak wu melokaanam ak sañ-sañam du àgg fa nekkuwaayu ku dëkk àgg wala sañ-sañam wala aw doxaliinam kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo nekkee ci àdduna da ngay mel ni ab doxandéem ku tumuraange wala nga mel ni ku fi romb rek jàll aw abiru sabil teg ci ne na ngeen di bari nangeen di bari lu ngeen di fàttaliku faatu waaye it na ngeen di yemale seeni bëgg-bëgg ndax ku yemale ay bëgg-bëggam di fàttaliku lu bari faatu dana yomb ci moom lool muy jëf lu baax loolu ñu ciy dégg ne kon lii tax nit ki du sawar ci jëf lu baax wala mu koy yeexe mooy di fàtte dee wala muy baril ay bëgg-bëgg di mébét rek di teg kon nee na say mébét na nga koy yemale tey baril looy faatu loolu boo ko defee rek da nga góorgóorlu ci def lu baax dana taxit doo xaare dara ëllëg loo war a def tey doo ne naa bàyyi ba ëllëg doo def li ñuy wax taswiif danaa def danaa def danaa def lu jot rek da nga koy def ci waxtoom kuy fàttaliku faatu lu bari yemale ay bëgg-bëggam ak mébbi tamit dana tax du tàyyeel day sawar ci def lu baax dana ko indil it dëddu àdduna waaye it dana yemale ay bëgg-bëggam dana taxit mu xër lool sawar lool ci waajal bis pénc kon ngeen gis ne tom bi jiitu ci xutba bu njëkk bi mooy tomb delloo ci jukko ju baax lii tax nit ki jege suñu boroom te muy fàttaliku faatu di yemale ay bëgg-bëggam loolu day tax jëf ju baax da koy yomb day tax lu mu war a def tey du ko xaare ëllëg day taxit dafay sawar ci jaamu yàlla day tax mu dëdd àdduna waaye day tax mu yemale ay bëgg-bëggam ba ca tege te ëpp ca solo mooy day taxit muy waajal ëllëg mu teg ci ne day tax lu mu def ci aw ñaawteef da koy gaaw a tuub ndax day xam ne deewa ngi ñëw nii waaye it lépp loo xam ne daf koy gàllankoor ci ak jaamu yàlla daf koy sori ndax day tax ndax day xam ne dee mën na ko bett saa yu ne loolu mooy tom bi ci jiitu tomb ñaareel bi bu ne nangeen xam ne yéen nit ñi fu ngeen toll yéen ngi mooy suñ boroom ci seeni cër te cër yii kat suñu boroom a bind ci yéen def ko muy ay xéewal yoo xam ne daf leen ko jox dénk leen ko mayu leen ko waaye daf leen koo dénk bu ngeen ko jëfandikoo ci ak topp yàlla def ci lu neex yàlla la taxoon mu bind ko ngeen delloo ko ca njukkal loolu bu ngeen ko defee mooy kon xéewal gi leen suñu borom jox sant ngeen ko ci kon foofu ñaareelu tomb ñaareelu xutba bi mën nañoo wax rek ne fi mu jëm mooy sant yàlla sant yàlla nag mooy leneen lu la jox nga xool la tax mu jox la ko njariñ la mën a jur nga jëfandikoo ko ca njariñ loola kon cër yi nga xam ne suñu borom daf ñu koo jox benn bu ci ne mu am lum ñu ca sant bu ñu defee lam ñu ca sant ca anam gam ñu ko sante bu boobaa mooy xéewal gi kon delloo nañ ko fa nga xam ne fa lañ ñu ko euh, fa lañ ñu ko sante woon te loolu mooy kon sant nañ suñu borom kon cër yi buñ ko jëfandikoo ci ak jaamu yàlla jëf ci li suñu boroom wax mooy kon euh, orma ji jim war a am ak ndénkaan li nga xam ne moom lañu ko dénkoon sàmm nañ ko te it bu mooy jëfandiku nga xam ne moom lañu suñu boroom waxoon ñu jëfandikoo ko suñuy cër jëfandikoo nañ ko ca anam ga gën a rafet boobaa nag lañu jur mooy suñ borom waxoon na ne képp ku ma sant amal naa la ak pay ku jëfandikoo cër yi nag ca la ko suñ borom sant mu jëfandikoo ko ca suñ borom amal na ko ak fay dana ko ci jox tiyaaba yi ku rafetal mu ne kon fanzuru kayfa taxfaduunaha wa taraawunaha kon léegi xool leen naka ngeen di sàmmi seen cër yooyu waaye naka ngeen koy téeye ba du ngeen ko sànk ndax kat euh, seenu njaboot bari nañ waaye njaboot gi gi ci jiitu mooy sa cëri bopp yi nga xam ne moom la suñu boroom dénk suñu boroom wax na ca alxuraan ne ku defub safaan duma la fay lu may bennub safaan waaye ku def lu baax nag moo xam muy góor wala muy jigéen te fekk mu ku gëm yàlla kooku ak fayam nekkul lu may àjjana joo xam ne bu demee dana fa fekk lu ne dana fa fekk lu ne te kenn du ko xisaab man amila sayyi'atan fala yujzaa illa mithlaha wa man amila saalihan min dakarin aw unthaa wa huwa muminun fa ulaa'ika yadxuluuna aljannata yurzaquuna fiiha bi gayri xisaab daan na dellu ci suñu borom jégglu ko xam ne ku bari yërmaane la waaye ku bari ak cofeel la wastaghfiru rabbakum thumma tuubu ilay inna inna rabbi rahimu wadud teg ci ne kon yàlla nañu suñu borom jéggal te jéggal leen jéggal mboolem jullit ñi kon ci gàttal ñaari xutba yooyu mooy yi ñu indi woon tey muy ñaari xutba yi mujj ci weeru safar gis ngeen ko xutba bu njëkk bi ci jaamu yàlla la jëm wax xaaj yim am ak niñ koy defee te mooy ay farata la ak i naafila ñaareelu xutba bi nag ci fàttalante la jëmoon ci naka lañ war a euh, bàyyee xel faatu naka lañu war a euh, yemalee suñuy bëgg-bëgg leen lu ci ne mu wax ñu lam jariñ teg ci nag ne sant yàlla lu am solo la waaye ni koy defee mooy la ci jiitu mooy cër yi nga xam ne suñ borom boole nañu ak moom ñu jéem koo sàmm cër bu ci ne am na lu ca suñ borom santaane ñu ñu cay def loola loola bu ñu ko defee mooy sant nañ ko te nag ku sant ku ne am nga pay am nga tiyaaba te suñ borom du sànk ku ko defal lu baax teg ci ne Euh, ay alxuraan yooyu nga xam ne moom la mujje te mooy jëf moom suñu boroom du ko sànk ku jëfu safaan suñu borom fay la ca waaye ku jëf lu baax it suñu borom fay la ca fay goo xam ne bu amee fu mu tàmbalee du am fu mu lu ci man di xewit ay rëcc rëcc mënta ñàkk léeg-léeg tooñ mënta ñàkk ndax suñu borom moo bindee doomu aadama noonu waaye ku tooñ wala nga def ay rëcc rëcc na nga jéggalu suñu borom muy ñaari xutba yu am solo ñaari xutba yu am maanaa yoo xam ne dajale na ay tomb yu bari ci loolu ñu ko jàngate waaye gàtt na it e, li xutba baaxoo am yépp am na ko muy sant yàlla julli ci yonent bi waaye fàttali ay tomb yoo xam ne xëy na sax tey gis nañu xutba bi composé na ay tomb yu bari waaye tomb yi dafa nekk ay tomb yoo xam ne dafa duggante ci seen biir loolu it nekkul li ñuy bañ ci xutba kon loolu moo nekkoon suñu jotaayu tey ñu santaan ñëpp leen gërëm di leen wax dig daje ba ajuma ji di ñëw salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wal tudxil al-musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadi al-wafi